woo xam ne rek dafa jëm ci projet emblématique mémorial bu Gorée yéenekaay bi ne buñ ca noppee nag daañu inauguré nag ca Ziguinchor ab mémorial bu musée boo xam ne rek dañu koo jagleel naufrage bu Joola mu fekk jamono joojee nag l'observateur dikk ci jafe-jafe yi nga xam ne rek ñi ñuy woowee kàngam ci wàllu politique ñu ngi koy am jamono ji ci mbirum parrainage yi Walf Quotidien faylu ko ne fi mu toll nii kay lii xeeñ nag neexul benn yoon ci ténor yi ndax dafa mel ni jamono ji nag dañoo nekk ci guddi gu setagul ndax lu jëm ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy am nag ci saytu gi jëm ci wàllu wàllu parrainage yi foofee ca conseil constitutionnel su boo xunma la yile parrainage loolee nag la yëglekaay bi di enquête xëy daal di fësal ci xëtam bu njëkk ne parrainage yi nag tax na ba démb amut benn candidat bu ñu validé ab parrainage citoyen Karim Meïssa Wade Habib si nag ñoom amuñu benn jafe-jafe bu ñu sukkandikoo ci yëglekaay bi ndax parrainage parlementaire la ñu daal di am yëglekaay bi ne ñaareelu fan kay yi ñu doon saytu nag lu jëm ci wàllu parrainage bi les échos dellu ne Karim Wade ak Habib ñoom jàll nañ jamono ji juróom benn ténor nag ñu daat leen di yóbbu fukk ak ñett ya ñu daat leen di dàq Malick Gakou Aly Ngouille Ndiaye ak Boun Dionne Souleymane Ndéné Ndiaye Mamadou Lamine jàlloo ak Serigne Gueye ñoom nag dañoo war a jàllaat ngir ñu saytuwaat seen ay ma parrainage Mamadou Diop Decroix El Hadj Ibrahima Sall Adama Faye docteur Babacar Diop ak Thione Niang yéenekaay bi di xamle ne nag ñoom ñi bokkatuñ ci les élections plan B bu Sonko di Habib Sy nag parrainé nañ ko ay député yu patriote ñoo ko parrainé moom Habib waaye nag ma ngay xam ne ne bis bu ñu validé candidature bu Ousmane Sonko moom nag dina élection bés bi le jour na Habib Sy kay jamono ji nag ay mbiram dafa complexe ginnaaw fukki député ak ñett yu Pastef yu ko parrainé looloo waral nag jamono ji mu daal di fekk ji nag ki nga xamante ne moo di Cheikh Tidiane Dièye jamono joojee nag docteur Babacar Diop ñu daal di koo tëbal ci élection présidentielle yi tëbal boobee yëglekaay jàll ci beneen mu daal di dikk nag ci Sonko mi nga xam ne jamono ji ma ngay dundee yaakaar Sud Quotidien àddu nag ci audience bi nga xam ne rek première chambre bu ci digganteem di Mame Mbaye ji kay la ñu fas yéene leexal nag diggante Ousmane Sonko ak kii di Mame ne rek war nañ koo amal ca Cour suprême mu jëm ci wàllum diffamation libération dikk tey bi ko bi ne jamono ji nag liberté ba ñu ko doon sàkkul nag dañu ko daal di rejeté tàggat yaram ca la ñuy àddu jëmale réew mi sport nag dellu siwaat ci wàccaayu kaan bu 2023 yéenekaay bi ne am na ñaari absent ci ñeenteelub séance d'entraînement bi ñu doon amal Ismaïla Sarr mi attaquant wu gaynde yi nag